aja Mor aja aja. Nara ñu lay jaar. Mor ah xam naa ne maa ngi nuyu fii Dakar di nuyu Sénégal di nuyu àdduna caravane de la liberté di wax ne am nañu mbégte bu baax a baax a baax a baax tey ñu ngi ci waat. fas yéene dugg maris jaar côté Pikine bi bu ci sax Kër Massar xajee ñu def ko ci bu ci xajul ñu bàyyi ko si waaye na leen wóor ne ba ci parcelle Sénégal bi yëpp comme niñ jógee Mbuur démb bëgg nañoo dem fépp ci àdduna lenn képp la nag moom lañ ci jublu ku ci sa doole xaj dooley poos def nga ko ci bu ci sa dooley kattan xaj def nga ko ci bu ci sa dooley joxe ndog joxe nga ay ndog waaye dafa am ñoo xam ne dama leen bëgg peral beral tey euh, kaddu goo xam ne bu ñaan la ak kaddu fàttali xam naa ne sax fàttali xam nga mooy ñan mooy paa yi ak maire yi ci biir kër ñoom dañ leen a jéggal loolu xam nga lan lan lan leen di ñaan mooy bu bis baax ñu jël carte yi nga xam ne mooy bu baax bi mooy Bassirou Diomaye bay ñu jugal ko ci biir enveloppe te bañ koo polet maa ngi leen koy fàttali bu kenn boole amul dem dugal ko man gàcce ga moom ku la nekk sànni ñu boteel Bassirou Diomaye Faye ñu fal ko ci premier tour sénégalais yi dañoo doyal te dañoo bëgg changement seen i doom ak seen i mag ak seen i rakk yëpp fas yéene te xeex bi képp ku ci bokkul ëllëg sëb sëb dina la ko reetaane. mais Boun Mara. caravane bi li mu neex nag teewul da ngeen cee boole ay voilà. alhamdulilah man ko caravane bi li mu neex nag da ngeen cee boole ak sensibilisation bu ci ayib. yaa ngi wax. waaw ñu war a voté ak paa yi li leen di xaar ak yu ni mel. waaw surtout loolu mooy liggéey bi ndax loolu. léeg-léeg ñu yëngatu léeg-léeg ñu def mais liggéey bi dafa nekk liggéey boo xam ne kenn fàttewu waaye dañuy fàttalante mhm. tey dafa nekk mbir moo xam ne paa ak maire yi dañ ci am solo mhm. te ñoom it li seen doom yi bëgg lañ bëgg te seen doom yi Sonko lañ bëgg mhm. kon nag nañ fal président Ousmane Sonko buñ ko falee réew mi baax képp lay def fal président Ousmane Sonko duñ ko fal mukk ay yaakaar bi tas moo tax boo gisee lii kilifa yu baax yëpp di ko ànd ñu koy jëfee yàlla bu buñ ci gis suñu bopp yàlla buñ ci yëg suñu bopp réew mi képp a tax ñu koy def tey dañ koy def te yàlla rek tax ngir Sénégal luñ ci namm séntu yàlla buñ ko am wallaahi laxasim dañuy jëf-jëf ji ngir lan réew mi dugg ci ay loxo yu néew te loolu képp kuy ab Sénégal war nga koo def bu kenn mere kenn même ku la tooñ sax jéggal ko te yàlla tax ñu def lan fol folli lii nga xam ne bu fi jógee Sénégal yëpp dinañ am jàmm man gis-gis laa am te loolu mooy Euh, démb ñoo àndal mbuur ñu gis fa loo xamante ni wax dëgg yàlla lu doy waar la mbuur moom mën naa ne sax mbuur moom nooy na mbuur moom fi ngeen jaar avant boobu tamit nooy na est li ngeen xaar fi ak mares fi ngeen parcelle ci li ngi xaar lu raw loolu ndax lan ñoom sénégalais yi ku ci nekk yaa ngi naan di woote jaar leen bërëb sàngam ñëw leen bërëb sàngam xam nga lu tax loolu mm-hmm. ñu bari dañu jàpp ne lii mooy caravane sax bu mag mm-hmm. te fekk lii mooy caravane de la pop benn waaw boo xam ne euh, euh, euh, li waaj di wax ñun ñun ñun ñun Sonko jam Diomaye fay képp ku ci defal nga ko ki nekk ci diaspora bi defal nga ko ki bëggoon a yéene amoon na ñoo xam ne tey bëgg nañoo gis sëñ Mara jëmmam ji mu lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw mën naa tax sax ñu xeeme président Ousmane Sonko loolu buñ ko xeeb moo tax ñu ko mënul di wàcc di dem ci marché yi ak di dem ci poñ yi ak di dem ci rassemblement mbaay nañu dugg ci biir kër yi di def porte à porte dugg waxtaan ak maire yi ñoom sax gëm naa ne ñoo ñu gën a gëm projet bi ndax léeg-léeg nga daje ci koo xam ne day téye sa loxo day wax bay jooy man daal li xew mbuur gëm naa ne lu ko raw dana xew Dakar samedi bii di ñëw ñu génn dem ci région yi dëkk bi yëpp danañ xam ne caravane bii du ay fo du ay caaxaan lenn lañ ci jublu mooy tabax Sénégal bu yees moo tax ku ci mën a bokk na nga ñëpp la ñu woo amul siisante amul xëccante lii ñëpp a ko bokk Mara du ci dara keneen ak keneen du ci dara mm-hmm. lépp Sénégal la barke alxuraan mm-hmm. ki ci ñëw tey mm-hmm. xàmmewuñu ak ki ci ki ci nekk bu gerte te loolu mooy réew Mm-hmm. Euh, seen i adversaire ngi préparé wu parce que la ñu mujjee jot ay xibaar mm-hmm. euh, donte ni mm-hmm. amaguñ moom moo nga wàcc sur le nekk directeur campagne bu Amadou ngi xalaat tamit lu mel noonu ñoom aussi dinañ jël deuxième round bi ah, xam naa ne nag li ngi a yéex a wàcc ñoom dañuy waaj rek damay ragal mbër ma rek taxaw di ngeem di léewtoo di léewtoo ba arbitre siffle na ko làmb ci jeex ba mu waree wàcc dafa yàgg ñoom daal ñu ngi leen di xaar ñun noppi nañ waaye nag nañ leen di wax ne bëgg bëre bañ bëre président Macky Sall daal na Sénégalais yëpp xam ne même bu leen ko dëfalee nañu xam ne fii yëpp élection yi di ñëw nañ ne tekk rek di ko déglu ñoom buñ jàppee ne xamuñu ñoom ci pex yi nekk ñi ngi nax seen bopp waaye am na loo xam ne duñ ko wax ci télé li ñuy pex rek li ñuy nas ñoom lépp xam nañu waaye sénégalais yi ñoo bëgg a voté ñoom nag dañoo fas yéenee bañ fee jóge ñoom loolu xeex boobu ñoom ci lañ ñeen na ko sénégalais yi xam ñoom bëgguñoo wàcc réew mi waaye dañ leen a faaliwul ñun di fëkkës di def ci li liñ war a def mooy lan dem ay campagne lañ bëgg ba noppi président Ousmane Sonko la ñuy déglu moom na ko xam Macky Sall Sénégalais yi dégluwuñ ko ñun Sonko la ñuy te loolu mooy dëgg ku ci nekk am nga droit par ñoom waxuñu ne ñëpp ànd ak Sonko loolu ñu baaxul. waaye ñi ëpp nag moom ànd nañoo ak Sonko. jërëjëf yàlla jërëjëf jërëjëf. <laughs> mooy boobale caravane comme rek niñ ko daal di gisee certainement ñàkk baara dañ koy daal di nekk ci yoon bi ñu dem xanaa rek tey ñu ñu ba rek voilà ba tey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 Dakar, notre plateforme d'information.